alaikum mbokki Sénégal alaikum mbokki Tivaouane ñi ngi leen di nuyu ci seen site internet bu mag bi nga xam yeen ko bëggal seen bopp muy étoile TV di leen bëggé bu baax bo leen gisé ñu tok ki ñu togal ngeen xamni seen xel warna dem ci lamb Baye dam mu nekk ko xamni kenn dootu ko présenter ci walu lamb rawatina ci région de Thiès waye rawatina particulièrement Tivaouane gi nga xamni fi lañu tok ñi ngi leen di bëggé yeen ñëpp tay ñu ñëw di waxtaan ak mom ci lamb ju mag lamb jo xamni kuñ ne le premier janvier sa xel dem ci arène nationale war a dox ci diggante bala gay 2 ak Boy Niang di lamb joo xam ne moom la àdduna yëpp di waxtaani ñu bëgg cee ñëw waxtaan ak moom te yaakaar na ne buñ ci waxtaan ak moom kenn du ni déet ndax di koo xam ne kenn dootu ko présenté ci lamb kenn dootul werante ak xamam lamb dañ koy bàyyi mu nuyoo. waaw ah, alhamdulilah salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu site bi site internet bi ñu ngi leen di ziar bu baax di nuyu axlu lamb yëpp rawatina axlu lamb réseau de Thiès di nuyu euh, mbokki Tiwaawan yëpp rawatina groupe. Eh, ahlu lamb bi rawatina cent pour bi tiwawon ñu leen di nuyu baax di dalé ci mbeur mu mag mi ba ci suuf muy mbul tirbo ñom euh Mbisaan Jonn ñepp ñom Ali mbay Ndeer ñom malik nya kulim do dajal ba ci suuf Sarko ñom ñepp ñu leen di nuyu baax di leen ziar di nuyu wa tiwawon gep di wax ne lamb ji mom ubbina ta mbokk yeb ñi ngi ci di yëngatu te rawatina comme liggéey li leen indi muy làmb Balla Gaye Boy Niang dafa yaatu ginnaaw ndax kenn ku nekk yaa ngi siy bay sa waar te kenn ku nekk it yaa ngi siy yëg sa bopp bon na ñu yàlla may fekkee ak tal incha allah. yal nañu yàlla may fekkee ak tal loolu am na solo loolu la Baye Dame nuyoo ñun tamit ñu si profité di nuyoo champion yi nga xam ne yëpp ñoo nekk Tivaouane comme ni mu ko limee ku lim doo juum waaye da dul matal Baye Dame du ñu la téye lu yàgg dañuy jublu ci waxtaan bi nekk combat bu mag. combat hamni xamni ñi wax ci lamb ñep dañ ko ragal mu nek combat bu naqaree analyse ci niñ ko waxee ñen ñi dañ ni lamb xalé la ak mag ñen ñi ni kenn ki dafa jitu rek kenen fek ki fek ci ko ndax bo xolé seeni ay at soreewul waaye dam bu la laaje ci balagay Boy lan nga ñuy wax. waaw lamb la lamb la mo waral ñu boole len ta Boy Niang dégg na mu wax si interview mu ne balagay mo soril aw yonam ndax fum mu rek talal ko loxo rek mu am fenen fum ko wiril mu dem bëree kooku daan ko euh, te it Balla it wax dëgg comme li nga wax champion la boo xam ne neexu la dékku te làmbam Sénégal gépp dañ koo soxla rawatina sponsor yi fii mu toll lii tax Balla gars yi bëgguñ daraam neen si làmb mooy euh, gars yi dafa safoog ñoom si làmb ndax làmb buñ koy wax tey ni tey bala Gaye dasee bokk champion la boo ne nii du reculer du deltu ginnaaw du delloo avance te it lambam day saf lamb waaw Balla non champion la te it eh, am lum daan ci si yi ndawam ba ni mu tollu ci buntu carrière am nga xamné jël na roi de saren ta mi ngi ci lamb ji ci biir waye man buma donko ko conseil mom Balla gay dama nan ko nang daan beure bul beure wat nunu Manam faaw mu sensé doxalin ndax lolou du jikko jamono la waaw faaw mu sensé doxalin baydam tay Balla Gaye ñu gis ci combat bi seen première face à face ñu gis Boy ñaa bu tek dënn Balla Gaye avancer ci kawam xuus ci kawam jaay ko sañ-sañ Balla Gaye def tek fofu lan nga lire ci Balla Gaye waaw foofu li ma liir si Balla Gaye mooy mbër mu mag la dootu mbir mu ndaw eh, bon ay affaire commentaire wala zoo yoyu yaakar naane bu ko wàññiwul du ko yok ndax lambam tollu na fofu xam nga tayit faaw nga bàyyee ko wax ji ba jëf ji ñew ngeen mais baye ak Niang wax ji ci lamb ji est ce que ndax Boy comme nima lako waxe mu dox ci kaw Balla Gaye est ce que bisu lamb ja bu Balla Gaye seetaanee ba Boy doxé non ci kawam lan nga gis. non man gëm naa ne Boy du dox ci kaw Balla waaw man xam nga lutax waklul, mu wax lool moy mbir mu nek mun nga wax la neex waye la nga man muy sa jëf manam loolu ndox du baye yonam kenn ku nek la nga daan bëré boko téggé rek eh, aman na nga gis lenen ak lenen rawatina Boy Balla dal lay xalat moom mu sansi si bëri. changé bi mooy da daan attaqué comme bu la mayee une minute ñëwoo deux minutes ñëwoo mu dal sa kaw te Boy Niang dafa bëgg ku dal si kawam moo tax ma ne Balla bu ma ko yoroon dama naan mu changé benn stratégie tuuti maanaam mu liir Boy Niang ba pare te bu koo tëb rek euh, sóobu si kawam ndax Boy Niang dafa doon mbër moo xam ne teg la ak teggi xam nga bu Balla nag bu déclenché bu mu bàyyeeti combat bi Boy Niang maanaam bu déclenché na jéem a jeexal combat bi si benn déclencheur waaye bu déclenché ñi tàqale leen si biir euh, amoon na am naa yaakaar ne combat bi moom du si am euh, confiance daal. maanaam su ma la déggee ci première song bi mooy sensu Balla Gaye. waaw dafaa war a jéem a jeexal combat bi. waaw loolu laa gis euh, ndax bu ko conseillé comme ni ko Boy Niang waxee si deuxième jàkkaarloo bi bu boobaa amoon am naa yaakaar ne weeru mën na si am xam nga Balla mi ngi entraîné mi ngi ut koofu rek yooyu yëpp waaye xam nga dooley mag ak doole dooley ndaw bokkuñu. Bala man lima japp moy lima orang def ci lambu li upp def na ko euh, supporter bëreeltul amateur day bëreel ngir bopam léegi boyanya ñaan nak jamono ji ñu tollu fa Balla tollon di fugu, di fugu deñum di tek dëndin di di di la may ay minute fofu la boy ñaan tollu wa léegi ñu gis boy ñaan bu nekk ci fugu boy ñaan bu indi doole bu arbitre sifflé yow nga yoron boy ñaan lan nga koy digal. wa bu arbitre sifflé ma yor boy ñaan dama nan ko ndox du bàyyi yoonam la nga daan bëree bëree ko maanaam toogal nga diglu gan gi donte mag la ak xale toogal nga diglu ko dans cinq minutes bu ñëwul ba premier round deuxième round ñëwal nga dox si amjil, loo am jël waaye premier round moom bul ñëw jeexal lamb ji ndax mag mu nekk rek am na lu mu làmboo te bala nga koy mën a xam faaw nga euh, may ko dans une minute wala deux minutes ba pare di di ko cons def ndànk ndànk ndànk ndax Boy Niang man jàpp naa ne Balla Gaye bu taxawee di xaar Boy Niang ba Boy Niang ñeme ko c'est trop bu boobaa lamb ji dana teel a jeex ndax li tax mooy Boy Niang day xeex xeexu benn benn te jam-jam yooyu day xam fi koy teg te Balla du mbër mu ñu yóbbu ardo ñaari coup bu ko dalee dana ñëw bëri. moo tax ma ne Boy Niang mën na mën na mën na toog xaar. mën na toog xaar mais ñu gis Boy Niang ñii analyser lamb ñu bëri ni Boy Niang Balla Gaye da koo arrangé. ndax Boy Niang dafa bëgg mbër muy dox ci kawam ba pare boo leen jàppantee ngay bëree comme moom ñu bëri nii Boy Niang pour mu daan Balla Gaye moo gën a yomb mu daan Lac de wala mu daan ku mel ni Tapha ndax Boy Niang ku ne xam na ni li mu bëgg bu bëree mooy defal ma def wala tegal boo tegee ma teg ku ne xam na ni Boy Niang loolu da koo mën ci ñi xam làmb bu ñëpp ni Balla Gaye bu wuureeg Boy Niang Boy mën na am sens waaw si kaw mu indi doole ju toll noonu nag si kaw mu indi entraînement bu toll noonu ndax Balla champion la ba pare Balla kenn du ko jàngal bëre ku mën a bëre la waxtaan wax deug da bokku bokk Balla mhm. dafa mën a mhm. ba pare champion la mhm. du mbeur mo xam dang da koy lambatu Boy ñaan nag lolu mom man nako lol ndax lu mu jang la man na baksu man na bëre waye bu doon mën damay manam ma yor Boy ñaa dama nan ko jitalal xex bi ta xex bi na gëna a wóor bi ba nga xam ne ci dess doon yor Balla dama nan ko jitalal bëre bi bul nango euh, éviter xex bi ndax Balla bu éviter xex bi man na euh, jël coup bo xam da ko dañ ko yakal lamb ta Boy ñaa xalé la am naa yaakaar ku ba yàqal Balla du yàqal booy Niang si kaw booy Niang nag indi entraînement bu doy ndax moom xale la lu mu yan jëmmam am naa yaakaar dina ko attan. lu am solo booy Niang xale la lu mu yan dina ko attan Baye Dame waxtaan wi am na solo wax nga ñu li nga xam ni mooy point fort Balla Gaye wax ñu li nga xam ni mooy point faible wax ñu Balla Gaye wax ñu Boy Niang li nga xam ni mooy point fort wax ñu li nga xam ni mooy point faible mais ci combat ci combat dama bëgg ñu ñëwaat ci biir combat parce que dafa nek combat bo xamni combat bu combat bo xamni technicien yëpp dañ ko ragal combat bo xamni technicien yëpp dañ ko ragal mais légui yow fi combat bi toll seen état de forme bi nga xolé Balla gay ndax gis nga len duplex biñ deful bu yagul dara nga xol état de forme Balla gay xol état de forme boyña par rapport ak biñu ñëk njëkkoon def lan nga gis ci seen état de forme. wa man gis na né Balla gay boyña da ko delo delo si wat ci lamb ndax Balla gay gis na né combat bobu budé bëgg na ko légui lako bëgg bi mu taxawé ni ni manam suma la déggé Boy Niang mo duggal Balla Gaye ci combat bi. boko déllu wat ci lamb ji ndax li tax moy Boy nya dafa laal géej way lu bëree bëree bëri Balla it amna na lu ma laalu Pikine waye Boy Niang dafa doon tekk Balla Gaye diko laaj Balla diko comme lima la waxon ci premier bi rek. Hmm. Balla diko jaaral fi jaaral fi jaaral fi la de guerre neexu la daan ndax na ko si interview mag ñi ku melni nga Ngagne mune la de guerre gisuma mbeur mu tok si kawam. ni ko Eumeu daanee bu ma doon euh, benn arbitre damay seet beneen règlement ñi bëriwaat ko bon dèjà Lac de Guiers ñàkk koo daan tëriwut a mën a daan Balla Gaye jeex na tëriwut doon champion te nag euh, Balla dafa am fu mu jaar doon doon champion daan dafa daan ay champion waaye boo Niang dafa am fu mu daan dafa fu mu jaar daan ay champion ba pare doon daanaan ndax man gis naa kenn ku nekk ni ngay bëri Balla day teg di teggi dañ ne Balla Gaye bu jàppee jeexna waye Boy ñaa day beure sans japp ngeum day xex si bir beure Balla day xex si bir beure ndax amna fugu fugg waye nak Balla japp la gëna foré ci si jaxaso jaxasoo sans jàpp Boy ñaa nak mom day beure sans japp ngeum ba paré di beure di daan bon déssa li tax mo leen Boy ñaa mo délo si Balla si lamb ji moy dafa daan ay rakam muy ku melni guuy gu ku melni Sa ku melni Les Deux ku melni Sa Thiès xam nga léegi nag bi mu ñëwee ba Balla moo fi sës yaa fi sës moo ko indi léegi nag Balla bu ñëwee si combat bi ndax dama dégg si interview ñi ñoom waa Géejawaay ñu ne bu Balla waree bëree léegi ak Boy Niang dañuy dem ba mu yàgg ñu ne léegi boor Bordeaux la ñuy bëree bëreetuñu ak Boy Niang ma ne bon combat bi arrangé gul ñu ne léegi dañuy bëri Gris Bordeaux bu buñ paree ñu doog a bëri Boy ñaa Boy Niang ne bu fekkee Gris Bordeaux la ñuy bëree man damay seeti keneen ku ma bëri xam nga tegal leen benn extradition. maanaam maanaam Mbaye Dame su ma déggee combat bi combat calcul la woon ci waa Géejawaay. mais est ce que calcul boobu tamit seen calcul mënu leen a nax ndax Boy Niang 2 ko xam ci fit ku ko xam ci doole ku ko xam ci bëre bi. parce que bu ñu xoolee ci commencement carrière Boy Niang parce que ñu bëri dañ koy jugé ci les derniers combats am te Boy Niang dafa daan ay jël yu ci biir làmb bëri bëri yu maa ngi fàttaliku ba muy bëre brise de mer dañoo bëri bay naaw ci kaw air benn benn mu ko caxabal bu kon yaakaar naa ne ku dellu ci ginnaaw Boy Niang xam ne war naa mën a daan Balla Gaye mel ni Garga Mbossé gis ga ni mu bëree ak moom gis nga ku mel ni guy gi ni mu bëree ak moom te am naa yaakaar ne wuree wu gën a rëy wuree diggante moom ak Sa Thiès mm-hmm. est booy que Boy Niang dana ti bëreeti bëre bu maanaam bëre bu mel noonu maanaam combat dana yëkkati moom si foofu xam nga contre moom ak Sa Thiès dóoral ma dóor jàppal ma jàpp xëccal lu nekk jargandalu lu nekk bëri nañ ko ba booy Niang daan ko bon dèjà comme li nga wax si brise de mer xam nga léegi am naa yaakaar ne lamb ji du yegg fofu ndax euh, Balla champion la waaye est ce beure bam doon beure Ousmane Diop beure bam doon beure Issa Pouy beure bam doon beure yenen gaay di di di jargandalu di wër ñu melni Bac Seras ñu melni Papa Sow ñu ñoo ñëpp laale na ak ñom han ah, ñu melni ni numéro 2 ñu melni Saloum xam nga na fi ay champion waaye beure bobu man gisatuma Balla di beure beure bobu xam nga gis naa Balla sax bu ñewé ci lamb ji yëngatu yëm daan yëngatu di fugg di daw di di dem si turbine bi di yëkkati loolu gisatuma ko si moom moo tax damay teey foofu négandikum si ay mbiram waaye mbiri booy ñaa ñi mën naa si suubu ndax moom xale la te booy ñaa bu arbitre bi soufflé li muy def mooy di benn bennal Balla saa bu ko laalee mu ànd ku Balla saa bu ko ñaari coup dalee dina ñëw si booy ñaa ndax booy ñaa loolu lay éviter booy ñaa ko ko fekk si suubu si am mbojam la bëgg nga Balla it dafa bëgg bëre ba nga xamne tay buñ ne ko xaaralit am naa du xaar 5 minutes yu ko Boy Niang di laal mu koy laal si loxo te yiksi wu est-ce ñaka xaar gogu du erreur ci Balla gay ndax Boy Niang ku ne xamne ni courir ci kawam ak doole te ku ne xamne lour bu déplacer wu day oef te jëlu Boy Niang Boy mu la song xol ko keroog ba muy ak Saaka jor Saaka jor ëpp ko doole lu bëri gaay ni bu ko Saaka jor jappé lamb ji jeex ba Saaka jor doxé ci kawam bam ko jëlé est-ce mënu ñoo xaar bu Balla gay doxé ci kawam xam nga moy lima la wax sank ne le Balla gay dafa bëgg bëri xam nga te it euh, euh, comme ni muy ni mu bëree ak ni mu daan bëree ak gars yi bu mu defee ne noonu lay bëree ak Boy Niang. il faut mu changer méthode. il faut mu changer. Mm. maanaam xaar googu ngay wax naan est-ce que dina ko arranger wala du ko arranger. Balla Gaye xaar moo ko arranger waaye nag na ko booleeg di liir Boy Niang ba pare bu koy dóor muy fayu te Balla bu mu sóobu si mboo jëm Boy Niang bu mu ëpp maanaam bu mu ko dóor mu jël ku mu dóoraat mu jël ku rek mu ne naa ko jeexal mm. bu ko jeexalee bu muyul dañ koy gis si suuf. mbokk loolu am na solo mbokk internet yi loolu am na solo Baye Dame kontaan nañ waxtaan bi am na solo ku ne gis na ni mu analyser combat bi mu nekk combat bu mag war a am le premier janvier Gaston nga taxawal ko mbokk yi dañ leen jox dig daje bala njool balaa lool dañuy Baye Dame mu tàggoo dañuy bàyyi bay Dame mu tàggoo mais di leen wax ni bu leen fàtte mukk abonné ngir doolel site bi pour ñu mën leen a jox lépp luy xew-xew bu ci Tivaouane ndax duñ yem ak yéen fii combat Balla Gaye Boy la le premier janvier mais di leen wax ni yeneen lamb yaa ngi fi lamba ngi fi ak suñu champion yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci département yi incha allah dinañ dugg ci ñoom seeti leen waxtaan ak ñoom mais bala ñoo loolu yëpp dañuy bàyyi bàyyi daam mu tàggoo di leen wax ni bàyyi daam kontaan nañ ci waxtaan bi gis nañ analyse bi ku ko dégg xam ne ànd nag xam-xam te àndul ak far ndax wax nga ñu lépp li nga xam ne mooy combat bi bu ñu sukkandikoo ci sa analyse bi dara dootuñu bett ci làmb ji ndax wax nga wax nga li Boy Niang mëne wax nga li mu tële wax nga li Balla Gaye mëne wax nga li mu tële dañ lay bàyyi nga nuyoo nga tago ak mbokki internet yi. alhamdulillah alhamdulilah eh, ala kulli hal ñi ngi santaat yalla bu baax di julli ci yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sant Maulana Cheikh ibrahim nga xamne moy siñu di siñu sant siñu wasila moy Cheikh Abdou Barham gannaaw lolu ñi ngi sant siñu wayjur bu baax eh, siñu wayjur bu goor bu jigen leen ñaanal yalla bu baax di sant siñu soxna moy soxna Ndey fatou ak soxna momital mi nga xamne mom lañ am. di sant suñuy goro yi nga xam ne ñoo ñu ko may ba pare topp ñu si benn fitna topp si benn coono di sant suñu njaboot gi nga xam ne mooy njaboot gi ñu jur yar leen jàngal leen di ñaan ñu am xam bu barke. amiin ngi sant yàlla it di sant waa Tiwaawan rawatina sib bii nga xam ne euh, moo ñuy intro. Étoile TV Étoile TV leen di sant bu baax di sant gars yi nekk si caméra am bu baax a baax di sant Mbisaan Jonn bu baax ndax moom ku bëgg làmb la waaye nag. mom dafa wu lamb lamb ko bëggal bopam mm-hmm. ñu koy ñaanal yalla def ko deug deug champion mom mag ñim and ak ñep ñom bu lak ñom ñoom bo ñom mari ñaa comme nima ko waxe won mm-hmm. ñu ngi julliwaat ci yunus yalla Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. xamne ne bis bi guddik aljuma la da ngeen ma fekk ma programme pour dem guddik aljuma mm-hmm. waye nit lu mu bëgg du ko bëgge xel xol la koy bëgge ta xol bobu mom lañ jital mo waral bu ñuy tardé fe it dinañ dugg ci li ba ba mu jeex ñi dem sa kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal jàmm di ñaan sib bi yàlla na dem ba doon ay télé doon dem ba nga xam ne fu ñu toll si àdduna rek ñi di ko dégg dem ba nga xam ne lu ngeen si fayee ko rek na doon lu leen di jariñ ba ngeen am seen i kër ba dem si màkk ba teral seen i wayjur yàlla mën na ko am na ko te bu ko defee du ko wàññi dara yal leen ko defal si zaahir rek si baatin wa ma alhamdulillah jërë ngeen jëf mbokk yi foofu la ñu waxtaan di leen wax ni dinañ ñëw ak yéen si yeneen di ñëw ak yéen ci yeneen i làmbolog yamul fii Baye Dame am nañu mbégte ak contentement jërë ngeen jëf